léegi nag dafa am soxna suma yóbbante mm-hmm. nee bi mu amee doom ak léegi yàggul mm-hmm. te moom dafa amam xemmemteefu woor mm-hmm. te doomam amagul ñaari weer muy laaj ndax diine da ko obligé pour mu woor wala ku doomam am ñaari weer mën naa woor jërëjëf euh, Serigne Chouaibou ñu ngi ñaan yàlla mu may ñu ñu dugg ci koor geeg alhamdulilahi rabbil alamina ñaan ñu itam ñu dugg ceeg bisimilahi rahmaani rahim ñaan it mu may nu nu génn ceeg alhamdulilahi rabbil alamina wax na dëgg su fekkee bi mu amee doom yàggul de day nàmpal mhm. rawatina kuy toll ci ñaari weer ak ñett mhm. du obligation ci moom que mu woor du obligation waaw du obligation ci moom mu woor mhm. su nattee nag def na mën na woor te du lor xale bi na woor su fekkee gis na ne bu ko wooree mën na lor xale bi mbaa mu loraale boppam moom ndax période nàmpal dafa metti ci jigéen rawatina bu xale bi amagul six mois d'accord su am six mois nag. Mhm. mën nga woor. boobu jamono xale bi day commencé mën a lekk dara. Mhm. mën nga organiser sa bopp ba bu la neexee muy nàmp guddi bëccëg yi nga di ko defaral ñam. Mhm. mais liiru ñaari weer ñetti weer kooku mënagul lekk ñam. kooku su waxee ne moom du woor diine nangul nag ko. mu dagg kooram bu koor gi jeexee mu fay. waaye nag. na lele. waaw na lele ah, ah na lele kay. ah même ku ko def loolu diine du ko pardonné ak règle bokkul ak règle. déedéet da ngay lele bokkul ak règle règle moom ki ko am bu paree day fay rek mu jeex mu génn ci. Hmm. walla moom mu fekk deret wasinam setagul. bu am ah, deret ji euh, setagul. waaw du lele setagul du lele. Hmm. du woor du lele parce que dafa am deret. Hmm. waaye nag bu koor gi jeexee day fay bés yooyu mu woorul woon parce que dafa dese woon deret. Ah. su fekkee deretam set na nag waaye day nàmpal mu ne munu ko boolee koor dañ naan ko bismillah parce que bugguñu laa lor bugguñoo lor sa njaboot mm-hmm. waaye nag su koor gi jeexee na nga fay ko bés yi nga ci am su dee weer wi yëpp nga fay ko yëpp waaye nag nga lele ànd ak muy fay yëpp day lele ah nga lele de lele gi lu muy doon lele gi mooy da ngay joxe lu suur doomu aadama bés bu yàlla sàkk bés boo woor rek bu ngoon jotee nga génne mudd mm-hmm. jox ko benn doomu aadama natt ko ci kilo. Mhm. wala loo xam ne mën nga koo xayma ci xaalis. Mhm. bëccëg boo woor xamal ne bés boobu mën nga ko joxe ba baa muy jeex. d'accord incha allah. macha allah kon yéen ñi nga xam ne yéen a ma yóbbante woon ci lool ak ñi mu concerné itamit euh, laaj baa ngi noonu. Mhm. léegi nag ba lañoo doon dem ci actualité bi ba léegi. lu jëm ci wàllu borosu. itam faw ñu waxtaan ci. Euh, imaam am na ñoo xam ne nee nañu boros day yàq koor. Mhm. nga xëdd ba pare borosu wala sax nga yeewu ci bëccëg bi daal di borosu ndax day yàq koor waaw boros du yàq koor mais pat la ñuy wax pat waaw pat bi ak boros bi du benn ah. waaw pat bi ak boros bi maanaam du benn ah boros nit mën naa woor ba bëccëg mhm. mu yëg ne gémmiñam dafa am benn sëcc mhm. mu jël boros bi ak ndoxu kese boros gémmiñam ba mu set wala mu xëdd ba pare jël boros bi boros gémmiñam ba mu set amul problème waaye nag boo ci defee pat hmm. pat bi dafa am liquide bu ci nekk hmm. mant la sax nag boo ko yëgee da nga yëg ne benn mant mu ngi ci hmm. loolu boo ko borosoo fekk xëdd nga ba pare wala bu ñu salaatoo boog dafay dox di dox sa làmmiñ bu yeggee ba ci sa put loolu day yàq sa koor moo tax ku woor fajar diggante fajar ba jant bi so du patu du patu du patu mais bu dee boros bi nag defoo ci dara boros la rek comme soccu lay nekk su boobaa. Mm-hmm. moo tax li gën mooy ki bëgg a patu na patu avant salaatu. Mm-hmm. avant waaye bu ñu xasee salaatu ba pare nga xam ne léegi fajar jot na. Mm-hmm. boo ci defee pat def ko sa gémmiñ dañ lay compter comme ku lekk mànt. ndax liquide bi ngay lekk liquide boobu day yàq koor te boo ko xasee borosu mënoo fexe fexe ba du jàll ci biir. boo ko yeblee caf ka mànt yi ak. ndox yu sew yi day jaar ci traits yi ni ci làmmiñ yi jaar ci sidit yi wàcc ci baat yi te day yàq ko waaw te lu jógee ci bët ak bakkan ak gémmiñ ak nopp bu yegsee ci put mhm. koor gi yàqu na duñ xaar sax mu yegg ci biir bi mhm. bu yegg see ci put gi yàqu ko sentiré ci sa put ci put gi rek yàqu na yàqu na te mën nga ko bañ a sentir sax nag hmm. waaw mën nga ko bañ a sentir te yegg na fa ndax fi muy dox day sew hmm. bu tuutee bu tuuti doo ko yëg da fekk jàll na ba pare mais pat moom foo ko patoo bëccëg par la force mant bi dina jàll ci sa put mhm. boo ko yëgee ak boo ko yëgul mant bi day jàll mën na bañ a jàll ci saa si mais day dox ndànk par ndànk ni ngay toogee di sentir sa gémmiñ benn sedd mhm. loolu temps boobu mën na def ci sa gémmiñ ay waxtu yu bëri temps boobu yëpp dafay dox jëm ci sa put d'accord waaw su taux bi bëriwul nag doo ko yëg lu ko différencier ak socc parce que am na socc du wex waaw socc tamit dañuy tere bu tooy bi bu tooy lu tax ñuy tere socc bu tooy bi liquide bi hmm. ñu bëgg aji woor ci bëccëg na na soccoo socc bu wow. d'accord ndax boo soccoo socc bu tooy. la tooy ci socc bi da ngay defee ne sa tiflit yi la yow say tiflit boo ko wanee amul problème. Mhm. mais ndox mi ci socc bi bokkul ci yow boo ko wanee day yàq sa koor. Mhm. moo tax ñu ne bugguñu aji woor. Mhm. di soccoo socc bu tooy. d'accord ndax soccoo socc bu wow. te boros bi tamit boo ko seetee lu wow la. ko defee moom kese boo ko bombee say bëñ bu fekkee da nga yëg ne sa xetu gémmiñ mi ngi lay sonnal nga boros gémmiñ gi bàyyi mu macha allah. jërëjëf imam nga baal ma bu ndaw rek. soo ma ko ma def ko ci masala bi nu fi jaarale woon bii passé waaw bii passé jëloon nañ ci. ay sàcc ay jëloon nañ ci sàcc ay. ma joxe woon benn exemple ci benn téere bu tudd Qurratul Uyun. borom mhm. Qurratul Uyun moo doon traité masala. Mhm. góor bu toxal ayu jabaram yóbbu feneen sàcc ay waaw wax ci ni mu nekkee mooy yàlla te muy lu wér. Mhm. ba sévère yegg ci ne même day yàq ak imaamam gis naa texte bu dindi ne du yàq imaamam. gis nga beneen texte. waaw ban téere ban téere ban téere moo ko saxal. mooy ne qurratul uyun. uyun moo moo qurratul uyun moo ne góor bu toxalee ayam. Mm-hmm. yóbbu ci beneen jabaram. Mm-hmm. mooy na yàlla maandu teem daanu na. Mm-hmm. dootul matati imaam. qurratul uyun waaye nag gis naa yeneen i. Euh, texte yoo xam ne bi muy indi churutul imaam. boolewu ci adaala bii dindi imaama. Hmm. ki sàcc soxnaam. am na ay wute yu ci am daal ah, am na wute nag. te jàpp naa ne texte boobu tamit euh, su ma doon jàpp moom laay jàpp man. Mhm. ndax gis naa ne yi mu indi ci ay tegtal mel ni ne moo gën a dëgër bële même bu dee bind nañ ko. d' accord waaw loolu tamit bëggoon naa ko. loolu moom ak maandute la imaam du borom xam-xam yëpp du ñu defee nii nga defee dañuy jàpp benn pàq rek. Mhm. ni fii la. kon yow bi nga paree gisaan nga benn téere yu indi leneen. nga gis ay tegtalam dëgër ne mën na bañ a daaneel imaamam. d' accord jotewul dara voilà. macha allah mais nag mooy na yàlla waaw. jërëjëf imaam kon ba léegi nga baal ma ko ba la ñoo mhm. génn ci lool rek ndax comme dañu jëm ci koor dama amoon mbokk moo xam ne moom ma soon dëkk moom yàgg na mais damay gis fu xëdd jotee rek. Hmm. Euh, ci jamono boobu damay gis bu noddoo rek mu dem sangu ji bés ñuy waxtaan mu ni ma euh, nit bu fanaanoo maanaam bu fekkee ne dafa jaxasoo soxnaam ñu euh, salaatu mu yeewu balaa dem xëdd. Hmm. pour sa koor nangu da ngay dem sangu ba pare. nga indil ñu foofu ko <laughs> imaam ak leeral parce que man tamit loolu. du loolu laa xamoon. léegi ndax nit ki bu jaxasoog soxnaam ci guddi hmm. daal di tëdd. bu yeewoo balaa xëdd day dem sangu ba pare pour kooram valable wala. <laughs> déedéet. <laughs> janaaba bi nga takk jotewul ak sa koor gi dara. Mhm. janaaba bi nga takk. Mhm. da nga ko takk avant ngay woor. Mhm. moom ak nit ki dem fee takk ay cabinet ñoo yem. ak nit ki dem fee saw bon tuur ndox. te raxasagu ko ñoo yem sobe bu la takk la kooku amul accès ci sa koor gi. fenn la doon garaawee mooy ci biir bëccëgu koor gi nga sëy ci. Ah. loolu moom da koy yàq mais ki nga xam ne ci guddi gi la sëy ak soxna mais loolu légal na. nga yeewu waale janaaba mën nga xëdd. julli rek nga ci munta def mhm. waaye même bu ñu salaatoo te sangoogoo du yàq sa koor alhamdulilah waaw boo biddanti woon sax yeewu huit heures neuf te sangoogoo du yàq sa koor da ngay dem sangu julli sa suba dëgg la biddanti bi baaxul mhm. mais amul benn benn yàqute wala benn wàññante bu muy def ci sa koor gi nga xam ne dafa fanaanoo jana ba mhm. te sanguwul fekk salaatu nañ ba pare amul benn impact ci koor gi macha allah du ci dara